ينتي يا محمد صلى الله عليه وسلم دفع واحد حديث البخاري من الحج عرفة من أج ما يعرفة برام خام خام في رين انتي وحيو برواية لو تار دي أج بيب بفكينة نجك جنت بسو أمغا عرفة يو أمغا أج بوكو بردري أمو أج عرفة بوبنون دفع أم امبورتانس لول في دين الإسلام أم امبورتانس في إستوار الإسلام am importance tam ci jamm bi jamm bi ci bopam moy julit jàngale won nañ ci hadith ci benn xadis yenentu bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ku wor bés bi yàlla dana la djegal bakatu at bi nga nek ak bi ñu legi na dafa am ben polémique bo xamne dafa juddu ci ndax arafa samedi lay doon fi ci Sénégal wala vendredi li waral ciow lolou nak moy arafa ndax ci place lañ koy xamé wala ci jamono ci lolou lañu bëgg leral inshallah ñeek ñu ci ñëw nak dañuy wax ne nañu xam ne arafa fay marqué ñaari mbir yu am solo lol moy bésu yawma alastu bi rabbikum bés bi yàlla taxawale ruhi yeb di len wax xana duma sen borom ñom ñep ñu ne bala xamna ne lolou ci nopp arif bu sayroom soreegul dana xaw doy wax waye bisu arafa tamit ci la diin l'islam maté ci la yàlla waxe won al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina tey jii laa matal seen diine ci laa mottali tamit sama xéewal ci yéen te tey laa gërëm islam nek seen diine loolu tamit mu ngi am ci bésu aljuma en plus bésu aljuma ci arafa njort ne ñu am chance u tombeeg moom léegi nag xam-xam yi dañoo wutee ñii ne arafa ñu ngi koy xamee ci jamono ñii ne ñu ngi koy xamee ci makkaan ku nekk ci ñoom dinañ la indil lan mooy tegtalam ñi nga xam ne dañoo ne ñu ngi koy xamee ci jamono dañoo wax ñaari mbir ñu ne benn bi mooy mabaadiu sharia charia mooy li nga xam ci la sharia di tabaxu dafay tegu ci certitude te bu fekkee ne nag dañoo war a taxaw ak waa Màkka mu ne kon njëkk appareil yi di am mooy technologie njëkk muy am naka la ñuy ne Màkka taxaw nañ tey te fekk distance bu yàgg moo ngi fa ñu ne kon ñoo ko doon xamee rek ci neuvième jour beneen bi aussi mooy que ne arafa neuvième jour ci zil xaj lay nekk kon dëkk bu nekk itam heure bi nga ko gis rek moment bobu à partir du jour bobu mom ngay compter ba am 9 jours nga def arafa yenn ci borom xam-xam yi wax nañ lolu kon ku jëfe lolu tamit fala haraj yow da nga def rek li yenn ci borom xam-xam yi digle ñeneen ñi ne dedet arafa ci zaman la naam waye tamit ci makan la ñu ne len ah yéen ñi wax na ci zaman la naka nonu tamit ci makan la fan ngeen ko tek ñu ne ci hadith bi nga xamanteni muslim riwaya nako jele ko ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax mu ne amul bés boo xamante ni dana gën a bëri yàlla lu mu ciy goreel ay jaamam ci safara ba mu mel ni bésu arafa mu ne yàlla dafay jege ci màggaayam dafay jege ñoñu arafa di leen puukarewoo ci biir malaaka yi naan malaaka yi xool leen sama jaam yi ñëw nañ daje ñoom ñëpp nekk benn tumuraanke lool waaye ñëw ngir ut ci sama ngërmaande loolu moo ngi am ci taxawaayu ñooñu waa màkka taxaw bi ñuy taxaw mooy waral yàlla ci màggaayam mu wàcc ci màggaayam mooy waral tamit mu leen di puukare woo kon dafa war a tombeek jamono bi ñooñu taxaw ñi nga xam ne nekkuñ foofu noonu nag ñu woor ànd ak ñoom ngir màggaay ak la xew ci bés boobu noonu ci teew ak màggaayu yàlla bi tabaaraka wa ak malaaka yi beneen bi mooy turu arafa ci boppam turu barab la turu place la mooy jabalu arafa fi ñuy taxaw xeer woowu moo tudd arafa duwut ne bés bi moo tudd arafa ñu ne kon buñ demee ba ne yawma arafa li muy firi mooy yawma yaquumu alxujjaaju ala jabali arafa bés bi nga xamante ne ñi aji woon dañuy taxaw ci doju arafa bu ñu xoolee ci ñaari waxu boroom xam-xam yi ñeenee seen wax dafa gën a poussé ci mantiqi mooy ci xel parce que dañoo nattale comme que technologie amutone gars nan lañ doon jokko waye loolu kon fay deñ moy kané illa bi taxoon illa bobu deñ na tay jokko bi yomb na waye buñu xolé ñi nga xamné dañoo ne fay téggu ci place bi ñom ñëpp seeni adilla adilla naqliya aqliya la moy yo xamante xel la naam waye tamit duñu ñu la jëlé ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu tamit buñu xol li nga xamné mom moy intérêt umma islamiyya li tawhidil li tawhidil umma moy ñom ñëpp ñu teunku ci bu fekkee ne makka taxaw na arafa ñoom itam ñu woor bés boobu noonu loolu boo xoolee moom moo ëpp avantage ci xeetu yenent bi sallallahu alayhi sallam te itam wax ne arafa mutaallaqun aw mutaalliqun bil makaan dafa dafa sukkandiku ci barab bi la fekk ñu taxaw fa ca bés ba loolu moo ëpp ay adilla te moom moo gën a wér kon ki nga xam ne dafa jàpp ne samedi la falillahi alhamdu am na dalil waaye na xam ne dalil bi gën a wér mooy bés bi waa Màkka di taxaw Arafa ñu woorandoog ñoom ndax seen taxaway fofu nonu mom moy wàcce màggaayab yàlla bi waye du wut bés bi ndax te firi wut ne yàlla jour samedi bi tamit da fay ñëw ci ñu wor ànd ak màggaayam ak malaaka yi di puukare wa déedéet ci taxaway bi la donc nañu xol ñom bés buñu taxaw ñun ñu wor ànd ak ñom bo xole lima wax rek aqliyan wa naqliyan هذا أصح بنن بتم دنجي جس نبري تي كومنتر سادن لك إحنا لينن تبي صلى الله عليه وسلم دفع آية وار بس الجمعة كسي كون ينار رو وار عرفة بس الجمعة اسك دنيا دف جدي أك فاندردي ولا فاندردي أك نانغم على كل حال في ممنوع أم فاندردي أك نانغم دخ لاندمي عرفة عيد له جل لكن ورتي وار وأنك ينن تبي صلى الله عليه وسلم لمي تاريتي حديث بوغنون موي نجل الجمعة يونيك ما وار كبر ما قال الجمعة بكسي lol lay ay waye nit ki bu fekkee ne dafa am ay fan yu mu daan wor ci dundam wala at bu mu daan wor manam bu jamono bi jotee jamono bi jot tombek aljuma loolu dara nekku ci dafa melni hadith bi yenen bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu kenn ci yéen jital ci ramadan bés wala ñaari bés ludut dut ku amoon ay wor yo don wor nga wooraale lu melni nit ki at bu jot sa yu at bi beesee rek da fay wor wala mom comme que yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon woor altine ci juddoom moom mu judd beneen jour mu jàpp date bi saa yu ñëwee mu woor mu tombeek aljuma mu woor ko moom kese wala mu fekkoon dafa nizar ne yàlla bag bii may def wala soxna si may ut wala borom kër bii may ut wala nangam bi su ma ko amee de danaa la wooral ca bés ba wala ca lendemain ba boobaa itam bu fekkee ne dafa tombeek aljuma da ngay woor ndax loolu nga nizaroon yenent bi sallallahu alayhi wasallam encore une fois li muy aayee fii nga jël aljuma kese nga bëgg kaa màggal ngil ne mooy sang bés yi nga bëgg kaa wooral loolu lay tere kon nañuy jéem a xool bu baax di comprendre yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la wax yàlla nañu yàlla nangul bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam